ah ay biir ci làmb rek mu ñëw la cinq ak jàmm yàlla def jàmm ñu salaam. làmb rek.

waaw El Hadj grand bi. mon frère. waaw li coow li coow la. yow loolu grand mënuñu cee wax. wax fii. non mais non non mais mais mais jaar na yoon lépp jaar na yoon lépp jaar na yoon. am na leneen lu mu ci defaraat. tax na amateur bi bëggoon a gis Ama Baldé te gisu ko mu ngi xar Ama Baldé ci làmb ñu ngi koy togg nag waaw ñu ngi koy togg non open press daal mënu ko ma cee waaye boo métti dimanche bi di ñëw gars am na lu togg daal lépp lam naa indi ci làmb ñëw na ah. waaw waaye daal li ma jaaxal ba jaaxal ma daal ah. mooy ki nga xam ne nii tey mooy diggante Ama Baldé Modou amul dara lu ci changé lamb ji day gën a neex rek day gën a neex rek day gën na tuuti waaw feeñ na ci ah, rek ndax affaire musique bi lay calculé quoi moo tax ñëwul ndax ñàkk foofu ragal mënu faa feeñ ndax kooku dañ naan duñ ko xeex duñ ko dóorante dañuy wax waxante rek dañ naan daa calculé musique moo tax ñëwul noonu rek. mais mais mais est-ce que loolu yàq bokk a neexal combat bi. non loolu moom instant yii moom day yàq lamb quoi. mbër yi day def du a bëre ndax ku ma doon dama daan moom dama daan Ama Baldé waaw affaire dañ bàyyi musique teg ko ne teg ko seen bopp rek da fa demee quoi

am na lu tax quoi. ndax dafa soxla. te waa Pikine dañ ko yeb. laa mujj daal fu mu ko lu ko jaral. ñëpp di ko xaar mu toog ay at at kon looloo tax absent bi loolu ko waral quoi. mais bokkul si lu yàqalam. non bokkul si yàqalam ndax mu tax. Ama ku ne xam ne Ama bu ñëwee ba tax a jaaj ñoo xam ne amaa ñëw na ndax combat bi waa Pikine yëpp dañu génn Ama xam ne dafa soxla seen doom dafa soxla. bilaa walaay taala moo du dara du dara du dara da ngaa jàppale Ama xam ne Ama dafa soxla wóor na Serigne Touba dama kaa jàppale. bilaa wala taala ok mais may laataan appel. ne amateur dañ gëstu Moussa Ndoye bu yaraax. ndax ñun ay doomu yarax lañ. Moussa Ndoye du yoon mu toog ati at bëriwul. du yoon na ko gars yi gëstuwaat ndax Moussa Ndoye champion la si biir champion yi. nit lu ko gën ko doon champion. da ko gars ay doomu yarax lañ. yamul lu ma wax benn igri man maay Arafas 2 bu kon tey jii nañu jàppale Moussa Ndoye mu mun a am combat te yàlla tax amateur nañ gëstu Moussa Ndoye bu baax a baax ah Ama Baldé dem lu ah, mais xëy na am lu ko tënk rek. mais est-ce que gars yi daa ruux de daa ragal. non non non mais pas Ama moom du ragal moom. Ah, ah. waaw dañoo war a laajte ba xam lan ñu koy siise mais nit des fois xam nga àdduna. ah mais mbiri suñu borom la rek. dañ ko laaj lan moo ko waral ba pare. wala ñu ko teg benn sanction bu leen waxee lu négatif. waaw ñu doog a def li ñu def. non même pas mais bari nga ko sanctionné da nga koy laaj lan moo waral lii ba pare mais jékki-jékki sanctionné ko moom amul kenn nañ ko laaj ba pare question yi xam nga ñoom dëgguñ ay intellectuel lañ buñ ko questionné lañ moo waral lii ak lii bu leen tontoo lu négatif ñoom xam nañ xam nañ waaw mais tous nag pël bi kese. mais la fekk moom da ñëw boo leen waxee béykat yi. bu ñu dee raam sax dañuy ñëw raam. raam raam <laughs> ñoo ko am nag. ñoo ko fa am. raam sax bu ñu ko dee def dañuy ñëw raam. waaw. pël bi rek la ñu topp. daa ruux wala daa mystique. na loolu. waaw. bu koy wax naa ko yaa dañ koy jey après lay comprendre lu waay waxoon na sa dellu Iba bëre xale bëre xale moo man moo ëpp doole moo gën a sox ñoom ñoom maase même génération la ñoom mënu leen dara bëre xale bëre xale bëre doole moo koy def doole eh. kon jàppante rek nga xam ne gone gi day liggéey. loolee kay dafa am lu sawar. général Ndolgine dañ koy yónni yàkkamti ko le futur roi. par seen baax général Ndolgine maa ngi gis sunu mbër mi wax Lo ñaara at ñaara weer muy de foomu làmb gi di daw signature yi gars yi nañ bàyyi li ñuy def kii doomu mbër la kenn mënu kaa xoxotal futur roi la luñ togg xam nañ ko na li def Père Lamine Samba na nga xool yàlla lig ni ko laay Modou Lo ñaari signature la yàq si de kër góor gi ak yeneen ak yeneen. waaw. non. ñun jàmbaar lañu ñëw. moom xaar ko rek ay salaamaaleykum mais non loolu moom kontaanuma ci parce que bu fekkee da nga am sa nawle benn contrat donc war remplir loolu baaxut ci làmb day day day day day tax da comme sa morom moo gën nga nekk ci leneen quoi waaw. waaw Amna na am naa ci moom yaakaar nag. am naa ci non de dafa lalu rek. lalu rek

daw. conseil daw. buy raam sax day ñëw. lu mu def daal moom moo di jàppee. Ah. nga xam dugub bay dugub dëgg. dëgg kay bay. nga gis loolu mosul gis si Modou Lo. ak alxuraan yi karim. si loolu moo di jàppee. waaw yaa ngi jàppante dóor mu daanu la. dafay dóor mu wàcc. dóor mu daanu billaay wallaay. avant moo mën de avant moo mën de. kuuru pour lañ koy dóor kuuru pour. dóor mu daanu la dóor mu daanu. ñaar la ñuy topp ñaaw daanu la ñuy topp.